alaikum Boki Sénégal alaikum Boki diaspora bi man Bok, le maire de la ville de Dakar Barthélémy Diaz Je vous siwaat tey des vidéos de Barthélémy Diaz l'officiel. Nous waxtaan si ak euh, mbokk yi mbokk yi vous euh, wax de tout parce que tey élections législatives, yi ñëpp pour le 31 juillet 2022 di am yaakaar ci élection yi dinañ mën a may askanu Sénégal bu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk bitim réew ñu mën a tànn ndaw ñu leen di toggal ci euh, assemblée nationale pour juróomi at yi ñëw yoon nag lu mu wax ñëpp xam nañ ko ci dëkk bi lu code électoral bi tamit wax ñëpp xam nañ ko tamit ci dëkk bi mu am nag ñu yàlla booleel ñoom ñu ne ñoom dañu nammul respecter lii di code électoral ak tamit nammuñu tamit bëre ak ñu ngeen xam ne ni ñoom ak ñun ñoo bokk langue politique bi ma bëgg a wax ci leer dama ne dafa am complot politique dafa am euh, njuut njaaj politique buñ ci bëgg a rax pour mën a forclore éliminer listu Yewwi Askan Wi ci département de Dakar loolu lu ko waral mooy ay nit ñu gëmul yàlla jàpp ni ku tudd Barthélemy Diaz norul egg assemblée nationale norul dugg assemblée nationale am tamit ñeneen ñu jàpp ni ni que ñoom juróom-ñaari député yi nor dem assemblée nationale ci turu Dakar noru ñu ko ci liste Yewwi Askan Wi loolu lu ko waral moy lu ngeen nam rek mom lañu nam moy cohabitation ci bi réew mi cohabitation boobu nak mom lañu ñuy daw te yag naa leen ko wax ma leen organiser wuñu élection pour ñàkk te xamnañ bu baax que mënuñu gagner élection kon su ñuy organiser élection lenn rek la ñuy jiital seen yaakaar yëpp dañ koy euh, teg ci njaaj ak dama ne mandataire liste Yewwi Askan Wi mi ngi tudd Déthié Fall ñoom seen bopp ñoom waa nguur gi ñoo def seen conférence de presse wax s'en ay wax ba duut mbaaraam ku ñuy wooye Saliou Sarr Bok ci coalition Yewwi Askan bi mais dama bëgg wax ji leer Saliou Sarr boobu ba ñu duut baaraam moom du mandataire liste Yewwi Askan Wi kon nag fan la Saliou Sar jaar ba dugg biir direction générale des élections comme nee nañu Barthélémy Diaz amul droit dugg direction générale des élections waaw nañ ma wax fan la Saliou Sar jaar ba dugg direction générale des élections mooy benn beneen bi mooy mandataire kese képp rek donc mo meuna a déposer liste ak lu ñëpp mënti wax ñu ñëpp dégg nañu lu Déthié Fall mandataire coalition Yewwi Askan Wi jot wax mom nee na liste bi mom déposé wu ko Wa maintenant damay laccé kan mo xam côté DAF mo xam côté Sénat mo xam fepp fu munti ko ci administration pour organiser élection ban yon ban texte mo len jox sañ-sañ ngeen di jël liste bu wul ci mandataire lolou su nekkulee complot lan la parce que nak na wax ji leer bii mooy journalu tay ñu ne waji di Saliou sar ñu ne mom moy le responsable mais mom moy responsable lan la lacc mom nekul mandataire mom su nekkulee mandataire nak la mënee don responsable te suñu kaddu nak ñu ngi koy biralaat dañu né complot bi ak tapalé bi ak njuj njaaj bi ça ne passera pas la coalition yewi Askan bi ñëpp dégg mandataire coalition bi lu mu wax moy Déthié Fall nee na lii du liste bu mu bu mu déposer mom wa maintenant dañuy laaj ana liste yewi Askan Wi département de Dakar dina am ku ñu tontu am dette parce que à la kulli al di ngeen ñu tontu parce que lu ngeen na ma def biir Dakar du ngeen ko def inshallah na ngeen dem woo seen gàngoor def seen ay conférence de presse ñun du ñun ak yéen ñun waxuñu ak yéen ñun dañu xam suñu ay nawle xam suñu ay maas am na fi ay nit wax dëgg yàlla rus naa di tudd seen tur par respect au peuple sénégalais dañu tekkiwul dara Sénégal te duñu fi mës a tekki dara te ba Macky Sall di fi jógee nag may sàkku ci ñoom rëy làmmiñ bu ñu rëy làmmiñ tey dañu góorgóorlu boo boobaa tamit nañu rëy làmmiñ parce que boo boobaa ñun dinañ leen laaj fan nañu jaar ba am alal bu ñu am tey du ci ndono du ci seen ñàkk su ngeen jàppe ni nag da ngeen di dëpp kees jaay suuf taxaw di saaga nit ñi te dara du leen ci fekk da ngeen di nax seen bopp dama ne nañu wax ci waxu élection yi te bàyyi tappale yi yeewi askan wi dina bokk incha allah ci élection yi Dakar ma bëgg nag wax ci leer te ñu bàyyi waxu naafiqi di ne ay waaw Barthélémy Dias dafa violent Barthélémy Dias violent wul dafa ñàkkul jom dafa ñàkkul fayda te Barthélémy Dias xam na lan moo na ko doon taxawaayam ci élection yi te dama fas yéene bokk ci élection yi